dañuy dem ci une des journaux euh, yi nga xamee ni ñoom ñoo génn tey jii ci euh, suba ci euh, àllarba ji ànd ceeg El Hadji Malick Thiandoum El Hadj Malick dañ koy tàmbaleeg ak l'observateur l'observateur mi ngi ñëw ci pétrole bi bërigo bu njëkk ba ball na pétrole ba génn na first oil fast first mu mel ni daal bërigo bu njëkk ak histoire bu nga xamante ni taarix bu rafet lay doon ñu daal ni nag dellu siwaat ci date yi nga xamante ni ñoom ñoo marqué opération de grande envergure bi nga xam ne ba ñuy tudd pétrole beeg léegi toll na ci ñaar fukki at euh, lan moo nekk nag ci wàllu risque ci renégociation contrat yi nga xamante ni gouvernement bu njëkk ba moom moo ko euh, négocier woon ndax buñ ko négocier waatee du am njeexital bu nga xamante ni mën naa yàq liggéey bi loolu laaj la bu nga xamante ni samp nañ ko ñu daal di ñëw yi tamit ci réforme foncière la première grande mesure mu mel ni phase 1 bu projet bi plus de 48 milliards de francs CFA loolu la ñu dégagé ngir mën a rek aar sa population yi euh, rurale yi ci li nga xamante ni moom mooy euh, mbirum suuf beeg li ni mel ak les populations périurbaines ñu ñëw ci mbirum tribunal kii nag dafa sàcc ay perruque ci valeur bu toll ci quatre-vingts millions ndax bëgg a dem fële ca Nicaragua ñu daal di dem ca Daaru Xudóos ak lu doy waar li fa am ak image yi nga xamante ni c'est devenu viral ci biir toile bi foo tourné gis euh, ki nga xamante ni doomu Sénégal la ay chinois jàpp ko dóor ko ba mu ni waalee njaay dóor ko ba mu nar a xam loolu yi nag euh, l'observateur soit na ci ak li nga xamante ni moom moo ko waral ñu ñëw ci nécrologie euh, Mansour Dia moom lañ doon wax léegi presse magasin daal di nay benn icône kii moom moo njëkk taxawal presse magasin bii di icône tey jii ma nga dem ca ba ca barsax ñi nga xam ne ay njegeñaaleem lañu ay mbokkam ak ay am di jàññam ak ñi nga xam ne daan nañu liggéey ak moom taxaw di ko seedeel seede yu rafet ci baaxam ak bëgg liggéeyam ak i professionnalisme national nationale Edouard Mendy ba ba mu demee Arabie Saoudite ñu bëri dañu fogoon ni moom monsieur Clean Sheet day traversé désert bi maanaam kenn dootu ko dégg wala dootul man la mu mënoon mu mel ni Edouard ma nga fa mu nekkoon. ñu dem ci enquête. enquête yi yéen kaay moom mi ngi ñëw euh, ci BRM nationalisation rachat créance tension et trésorerie mu mel ni daal ñaar euh, téeméer ak euh, fanweeri milliards daal dinay naaw ci biir ngelaw li France daal di xëddee ñu ñëw ci mbirum premier baril de pétrole loolu nag démb la feeñ Sénégal dugg na ci club restreint maanaam ñi nga xamante ni ay réew la ñu yuy exploité mbirum pétrole ñu daal ñëw succession de Macky à la tête de l'Union africaine. l'opposant kenyan Odinga mu mel ni moom daal moo nekk en pole position pour remplacer ko ñu daal di ñëw ci monde de la presse en deuil Massour Dieng dem na ñi ngi koy joy moom moom nga xam ne euh, icône la woon ci wàllu presse. beneen yéen kay di libération. libération mi ngi ñëw ci pôle urbain de Diamniadio. Euh, ak Lac Rose gestion 2017 2020 l'impitoyable festin des opérateurs mu mel ni daal caxat-caxatee ak itamit tong-tong bu doy waar moom moo fa am parc automobile de la présidence ñu daal di ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy téeméeri oto yi nga xam ne ñu ngi koy wër lan moo ko waral ak lépp lu ci laxasu journal bi dellu si na ci production pétrolière le Sénégal tient son premier baril mu mel ni bëri pétrole bu njëkk génn na chambre africaine de l'énergie nee na avenir nu Sénégal daal gis nañu ni avenir bu baax la yàlla nañ yàlla yàlla lafal cat. ñu dem ci tribune. Euh, daal de euh, mi ngi ñëw ci nag tëbaski gi muy ak mbirum xar ya xar yaa ngi nii Cheikh Tidiane amagul xar mouton cher argent introuvable mel ni xar yi cher nañu ba pare nag fi mu toll nii xaalis moom boo lambee nga fa kay doo ci fekk dara mu mel ni xar yi boo amul cent cinquante mille mënoo goo am xar mu mel ni daal contexte de hausse généraliser des prix euh, ci la tëbaski gi di ñëw mu mel ni prix yi njëg yi lu bari dafa yokk ñu daal di ñëw ci leneen. muy acte de barbarie ci euh, rek ki nga xam ne mooy chauffeur boobu doon laaju payoram chinois yi dóor ko euh, ba muy bëgg a dee loolu dellusiwaat nañ ci Adama Gaye journaliste consultant mu ne euh, li nga xam ne moom mooy presse bi dañu war a xoolaat seen bopp def seen pétum biir First Oil Sénégal dugg na ci kuuru pays producteur de pétrole. dem ci Walf Quotidien. eurobond décaissement du FMI en juillet. quotidien ci loolu la ñëw mu mel ni daal taw milliard moom mooy wàcc ci kaw Sénégal euh, ci at yi nga ci wala boog ci ay bës yi ñu jëm waaye nag euh, tawu milliard ak taw bër euh, pétrole bu ñu ko boolee Sénégal comme dina jóg ndax <coughs> nee nañu enfin benn bërigo ba génn na Sénégal commencé naa exploiter li nga xam ne moo di pétrole. Euh, ñu dem ci bés bi le jour. bés bi le jour Sangomar livre son baril de pétrole mu mel ni Sangomar génn na barilu pétrole am premier cri de l'espoir yaakaar juddu na moom tamit dellusiwaat na ci li nga xamante ni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye wax na ko ci génération yi nga xam ne ñoo di ñëw daal di dalal seen xel première phase ñu ngi ko prévoir waaye li nga xam ne moom lañ ci euh, xalaat. mooy euh, cent mille barils par jour téeméeri junni bërigo yu nga xamante nii dina génn par jour décès de Mansour Dieng de Icon Magazine la presse perd un as mu mel ni ku mag la presse su Sénégal daal di ñàkk cri de cœur des migrants dans le désert du Niger mu mel ni ay centaines nu sénégalais daal ñu ngi woo état bi ngir ñu wallu leen réaction secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur mi ngi ci biir journal bi suñu concert Nafisatou Diouf dañ ko auditionné moom nag xamal na leen ni man musuma yor oto bu nga xamante ni dafa jóge ca présidence de la république euh, marché bien fourni en oignon ak pomme de terre mu mel ni ñi ngi doon wax mbiru xar waaye pomme de terre bi ak li nga xamante ni moo di sob sali soble si nee na gàññ ñoo ñu dem ci Vox Populi. Vox Populi Sénégal dellusiwaat na bokk ci li nga xamante nii mooy pays producteur de pétrole depuis démb li nga xamante ni mooy fosse oil dans le champ de Sangomar génn nañ ko ñi nga xamante nii ñoom ñooy euh, journée historique pour le Sénégal ak Woodside loolu la PDG bi daal di xamle ki nga xam ne nag mooy euh, Tine moom tamit Alioune Tine ma ngay artu nee na nag attention ni nga xamante ni moom moo di pétrole bi balaa ñu ciy barkeelu wala boog balaa mu ñuy amal njëriñ ñu nekk. ci réew mu nga xamante ni réew mu dal la ñu tàppe xol yi fóot xol yi te yéeneente jàmm tey dox ci jàmm ñu daal di ñëw ci ci mbir mi nga xamante ni euh, daal euh, concept polémique sur l'état euh, fian loolu yi tamit dellusiwaat na ci coopération Sénégal avec li nga xamante ni euh, moom moo di l'empire du milieu loolu yi tamit dellusiwaat euh, na ci. ñu dem ci source A. source A l'occupation du domaine public maritime à Dakar passée à la loupe par la commission ad hoc loolu nag mu mel ni mbir yi mi ngi commencé yëngatu. euphorie collective mu mel ni daal Sénégal ñëpp a kontaan am yaakaar ci pétrole bi nga xamante ni ball na kenn ku nekk yaakaar ni mbir mi nag dina daal tax ba réew mi changé doxalin bi changé dund bi changé lépp daal di neex am na nag gëstu bi nga xamante ni journal bi def na ko ci. Euh, ñu dem ci yéen kay record mi ngi jëm ci mondial deux mille vingt six ki mu mel ni daal euh, Mendy Seck Gana ak Pape Matar Sarr ñoom ci mois de juin bi bind nañu ay not yu baax am nañ ko ginnaaw bi nga xamante ni nii jongante nañu ñaari jongante. tey yi ñu ñëw ci mondial 2006 kii ba léegi tombeur du Soudan du Sud les Soudanais repassent devant le Sénégal mu mel ni fi mu nekk nii Sénégal moom mi ngi ci ñaareelu place bi Soudan nag dafa dóor Soudan du Sud ñett bal ci dara daal di jël première place bi Ablaye euh, euh, Seydou sawo mi nga xam ne mooy président ligue euh, bu football amateur nee na nag faw ñu daal di seet naka la ñuy def ba am solution ci contentieux yu bari yi nga xamante ni moom mooy miné footballu Sénégal ndax saa bu ñu football championnat bi day bëri ay dossiers yu nga xamante ni daal ay lëj-mëj la wala boog ay kalaame yu nga xamante ni tegu na euh, ci seen table nationale de Guelwaar sacré devant Euh, AS Darou Salam Coupe du Sénégal féri de foot ñoom ñooy défier Jaraaf de Dakar. Euh, ñu dem ci stade quotidien. stade quotidien mi ngi ñëw ci mondial 2026 largué à deux longueurs le Sénégal ira au Soudan la peur au ventre mu mel ni Soudan jël na première place ba Sénégal jël deuxième match am bële di ñëw dafa war a dem Soudan waaye bu ñu fay dem nag dañuy football ak daal tiitaange gu nga xamante ni résultat positif rek moom moo ñuy arrangé. contre RD Congo et Mauritanie à 34 ans mu mel ni gànn fi mu nekk nii dafa mel ni ku denn ku dellu nekkaat xale bu xale bu ndaw a ndaw a ndaw di jayi jayi di kargaay di paas di duut di di di taakale moom gànn wan na na kanam gu am solo waaye ki nga xam ne moom nanguwul la màggat mooy Cristiano Ronaldo ma ngay dugal rek ba léegi. <laughs> ñu dem ci sunu lamb. ayca suñu laam mi ngi ñëw ci Mouniang production quatrième journée bébé Balla euh, boîte vocale loolu le 20 juillet la Tigre de Fass 9 ans euh, sans victoire moom Gris Bordeaux juróom-ñeenti at a ngi nii ba ba léegi daanul kenn ñu daal na Gris sous pression contre Ama ñu daal ñëw ci keneen ku nga xamante ni nii itamit mooy Tonnerre en quête d'un passé glorieux Tonnerre amoon na départ bu baax waaye dafa jekki ba ci yàgg am ay euh, jafe-jafe ci wàllu làmb waaye fi mu nekk nii dafa bëgg a dellu soit au devant de la scène. voilà euh, El Hadj Malick lii moo gënoon fës ci une yi